merci beaucoup parce que vraiment tey am nañu mbégte bu baax euh, dalal vraiment volontaire bi nga xam ni coopération japonaise ñoom ñoo ko affecté chambre de métier pour ñaari at. voilà loolu vraiment dafa nekk loo xam ni lu am solo la donc euh, bu ñu duggee ci CV volontaire bi tey moom ci wàllu marketing ak digitalisation mooy mooy mooy mooy mooy mooy kii mooy spécialité en même temps ak organisation générale d'entreprise conseil la spéciale ah voilà vraiment kooku nag tey dañ ko soxla en terme de coopération pour wane vraiment li nga xam ni chambre ci am na ku ci yéene ci mën a taxaw ci liggéey bu mel noonu nga xam ni tey dafa nekk au dafa nekk au muy wàllu commerce électronique ak yu demee noon yooyu yëpp ah loolu defe naa ni tax tey tax na ñu am kii kii nag volontaire la boo xam bi dafa ñëw nekk troisième volontaire premier volontaire bi joxoon nañu ko ak yeneen chambre sax waaw chambre yu bari amoon nañu ay volontaire mais nag vraiment loolu c'était te c'était un test rek boo xam bi dañ ko doon def pour pour benn benn benn promotion mais bi ñu demee ba si biir ñu arrêté tom gis nañ ni chambre mi ci Thiès moom war nañu mën a continuer liggéey ak moom donc ñu joxaatoon ñu un deuxième volontaire kooku tam vraiment def fi liggéey bu am solo ba jeexal deux ans delluwaat donc troisième volontaire bi nag moom mi ngi ñëwoon en deux mille dix neuf juste tombé xew-xew yu métti yi fi tal amoon ci wàllu feebar yi ak yooyu te Covid bi alors ñu delluwaat ko ñu rapatrier mu dellu. finalement dem nañu ba nga xam ni nag léegi processus boobu yëpp jeex na alors ba ñu demaat ba war a indiwaat beneen promotion nag wutal ñu beneen volontaire. waaw parce que kooku demoon na ci yeneen mission après voilà ñun nag ñu daal di ñuy yónnee tey volontaire bi nga xam ne tey moom la ñu indi muy madame Fatou Faye mademoiselle Fatou Faye nga xam ni tey war na liggéey ak ñun gunge chambre de métier euh, c'est que li ma bëgg a wax foofu mooy comme ni ma ko waxee ci biir chambre de métier dafa ubbeeku merci beaucoup <laughs> oui l'ambassade Turquie mm-hmm. et et les gens américains waaw parce que loolu mooy suñu secret mooy liggéey hmm? suñu doctrine mooy liggéey ak développement du secteur économique voilà donc ak social donc loolu mooy suñu volonté am nañu ay suñu carnet d'adresse yaatu na ci avant ñuy bien avant que ñuy ñëw chambre de métier voilà parce que yëpp ci ay relation yu ndaw la jaar ba nekk tey lu mag nga xam ni tey yàlla indi na ma ci institution bi ma jiite ko mais tam aussi yàlla ngi muy defal sutura vraiment muy continuer si relation yooyu nga xam ni tey ay relation peut-être sax mën nañu waxoon des relations personnelles finalement institutionnalisé nañ ko ba seen pays yëpp wala si ci quoi tel que l'Amérique États-Unis d'Amérique euh, Japon euh, <coughs> coopération allemande hmm, ainsi de suite ainsi de suite ah yooyu mën nañ leen citer ah donc loolu su fekkee am nañu vraiment liggéey yu am solo yu ñu def ak ñoom ànd kook ñoom hmm, di ngeen gis ni chambre de métier résultat yu bari yi mu def hmm, ñoom seen loxo mu ngi si biir te aussi ñoo ngi leen di mettre en rapport toujours ak euh, équipe technique bi fi nekk fexe nañ tam ci biir waxtaan ba ñëpp bépp volontaire bu fi ñëw ak pays boo mën a jógee tam ah collaboration bi day nekk benn collaboration dañuy jàppalante ànd liggéey seen benn objectif la ñoom mooy Euh, euh, per per mooy euh, MRC la chambre de métier ah bu nga xam ni artisans yi dinañ ci mën a gën gis seen bopp voilà donc waaw sama kàddu ñu mooy sant bu baax waa coopération yi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéey mais aussi sant leen yéen waa presse bi nga xam ne tam yéen yéenay ñëw toujours di gunge chambre de métier mais aussi tam sant bu baax personnel u chambre de métier commencé par le secteur général ak le le le staff technique bi nekk si biir ak le l'espace financier bi ak le service répertoire ñoo ñëpp vraiment maa ngi leen di sant bu baax ba ci ñii saytu kër gi guddi ñëpp bàyyiwuñu kenn ah mais vraiment damay woote rek ni artisans yi nañu xam ni euh, am nañu tey benn sens ci maanaam dundalaat gën a dundal suñu commerce ah ci wàllu produits artisanaux yi ak ci lépp li nga xam ne nii dana soxla marketing ah defe naa ni loolu tey dinañ si ubbi bunt yu yaatu incha allahu dina rep dina revenir dina jël service euh, semaine prochaine ah bu ñëwee incha allahu dinañ tàmbali dugg ci liggéey boobu voilà. effectivement vraiment kenn ci personnel bi muy madame Soda Diallo vraiment nekk jàmbaar trop ci service bi di liggéey ah, yàlla indi nattu bu tol noonu mu dal ci kaw doomam vraiment loolu taxoon nañu tej kër gi personnel bi yëpp dem kenn manqué wul vraiment ñu dem gunge ko ci mitit boobu ak tiis boobu. di ñaan tam yàlla yemale ko foofu vraiment lu am solo la personnel bi lu ci ni kundum ñun ñëpp war nañu ànd solidarité ak moom ba nga xamante ne bii vraiment dootul dootul dootul dina wàññi métit bi dina gën a wàññi ko tuuti waaw au moins que donte le deux pour cent wala dix pour cent war na mën a man mën a mën a wàññeeku boo jaaxlee wala nga am métit gis say entourage yëpp nekk sa wet loolu dañ ko digle quoi voilà merci alhamdulilah